3S Pro. siyaar naa la. ci jàmm sant yàlla bu wér. nu gisee làmb waaw neex na macha allah làmb espoir mu mel nii te di masawu Ibo mi gaañu ma waroon bëri spécial bi. donc di féliciter promoteur bi quoi vraiment ñun lamb rek lañ am chaque dimanche lii lañ bëgg amuñ fenn fuñ jëm pour stade waaw. ñu jëm combat bi nga xamante mooy combat du siècle àdduna bi yaakaar naa ñëpp a koy xaar mu di ko ni genre co comment dire ak ki nga xamante ni mooy Sa mu nekk combat bi nga xamante ni combat espoir la ñaari xale yu noonu lañ gisee. moom muy ñaari ñaari yaakaaru lamb di ñaari mbër yu am ginnaaw di ñaari mbër yoo xam ne ci lamb lañ askanoo kii kuñ ne kuy sa baay ñu ne Double Less kii kuñ ne kuy sa baay ne Papa Kane kon ñaari njabootu làmb la ñooy daje waaye nag nañ xam ne Sénégal la ndam li génnul Sénégal di leen ñaanal yàlla yàlla defal leen jàmb defal promoteur bi jàmm defal amateur yi jàmm defal senegal moo na àggsi ñëpp jàmm ñu ñëw féete ko fii que le meilleur yàlla may ndam ñoo xam ne senegal moo am dam mais nañ ko def feet daal. ñu gisee ñaar forme non ñaar ñoom ñu ngi ñaar ñooñu kenn du leen wax làmb ñoom ñaar ci la làmb yem ñoom ñooy ñooy làmb de déggoo li ma la wax ñoom ñëpp ci keppaaru mbar lañ juddoo dañ ñëw fekk fa ngemb li ñoom ñooy làmb di ñaanal jàmm rek kenn bañ a gaañu kenn ñëpp ñëw si jàmm ak salaam. dañu xeex. ah dañu xeex. non non. dañu xeex. dinañ xeex dinañ na sax. en tout cas ñoom ñaar il faut ñu laale. waaw il faut ñu laale dinañ laale doo lay bëre mais ci bëre lay jeexee. entraînement bi noonu non ñun ñaar seen dernière séance li ma la wax ñoom ñaar kenn du leen jàngal làmb ñoom ñaar ñooy làmb li war ci làmb rek def nañ ko xanaa ki yàlla àndal rek. ki yàlla àndal jour ji jamono ji bataille psychologique si ñoom ñaar commencé na mëneewu si ñoom ñaar ñëpp kenn na nga 10 combat maa la mën kenn bu mu doon nelaw sax gëw ma daama daan ñoom ñaar seen conversation boobu waaw mais normal parce que dañoo jël du jublu ci bés bu rëy donc il faut il ñu wane seen bopp ci contrat bi la bokk jaay làmb li ñuy def yëpp ci làmb lañ ko teg boo xoolee li ñuy def yëpp ci làmb lañ ko teg waaw koo jàppalee jeexee ah koo jàppalee ne koo jàppalee jeexee non dinañ bëri de dinañ bëri ba Sénégal jóg taxaw kontaan naa. maa la gën a kontaan jërëjëf merci. play rek. Vito ak Garo Gar. Garo Gar ak Vito toj na nen moom Vito. arbitre bi ne ndax pare Garo Gar. arbitre bi sifflé na. 19 février 2023 fii ci arène nationale bu Pikine Vito ak Garo Gare war a ñu ngi jàkkaarloog Vito Garo Gare moo ñu woon ginnaaw ndeke dama toj naa dëkk bi Vito ak Garo Gare leetoo bi am na distance Vito dagg na ko daal di koy jege wala Garo Gare dagg na ko daal di koy jege. ma leen gisee nii bu ñu jàppante combat daal bu ñu mu jeex bu ñu xeexee bu loxoy jógee mu jeex. Tëngéej ak jàppkat si Kaap Mbaaw la Vito ak Garo Garo ñoo war a bëre fu mu ne nii jongo amagul dóor amagul cokkaas amagul. man bëgg naa làmb ji mel ni Malick Gaye numéro ak Boy Dioum làmb ji saf xeex am bëre. gaaro gaar Vito gaaro gaaro gaar dafa mel ni da koy yoot li ñuy naan na léegi moom gaaro gaar Vito deful dara. ma nga aj ba moom Vito gaaro gaar Vito dag na lew tooba gaaro gaar Vito Vito ak gaar day calculer defet defet neexul moo tax ku nekk mi ne tekk di déglu moroom mu ñëw grand combat la kenn du fawee sa combat waaw du yomb préparation dafa métti Vito gaaro gaar Vito ak Garo Gar jël la ba bu laa ilaaha illallaah lii la la nii tànk ba la jël téléphone ne ko mu ko dara ko jox gauche droite ne ko génnal. action bi la lii ba muy ñëw da koo gis. réaction. waaw boo mooy la. Vito dagaat na leewtoo ba ñëw ci digg géew gi ne ko kaay làpp ci géew gi lay leeree. Gaalu Gaat topp ko dafa ragaluma benn yoon fi ma jëm Gaalu Gaat vidéo noonu la jëlaat tànk ba am déet waaw waaw la bëgg a jël ku ba vidéo xeex la privilégié jàppante nañu songoon nañu ñoom ñaar fu mu ne ku ne am nga loxo ci ngem sa morom xëcc na ko laay laa yaa daan sa bopp yaa daan sa bopp munoo daanu daaneel munoo daanu daaneel. dafa dafa li mu wàcc munoo daaru daaneel munoo daaru daaneel. munoo daaru daaneel. munoo daaru daaneel yaa daan sa gaaroo gaar yaa daan sa munoo daaru daaneel. waa lii la nii ñu lay ay waay jii. waa lii la la nii. dañoo kontaan. xoolal leen. yaa daan sa yaa daan sa lii du judo du karaté du taekwondo lii bëre la mënoo daan daaneel jommi nga jommi nga mu ne nii yaa song yaa def action yaa daanu Kalidou moo daanu moo daan boppam Vito daan na gaaroo gaar ma nga jëm ci moom bëgg koo yëkkati bàyyi leen yëkkati ko day dundal fii fair ci làmb ji dundal fair play. Thank